di ñaanal sëriñ Mountakha Bassirou Mbacké mu yàgg fi loolu te ànd ak wér noonu la ñuy ñaanale sëriñ Amdi Modou Mbend Fall xalifa général di Baye Fall yàlla ko sunu boroom yàggal te mu ànd ak wér waaye di ziar mbooleem kilifa diine ji waaye di ziar ki nga xam ne mooy sunu kilifa di sëriñ Muniru al Khalifa di ko ñaanal sunu borom yàggal ko fi loolu te wér mbokk yi nga xam ne yéen ñuy seetaan ci Thiès Média ci reportage yi nga xam ne ñu ngi leen koy amal ci màggal gi mu mel ne jotaay bii ñu am. maam jotaay bu nu miin la ci màggal gi waaye miin ko fii ci Thiès Média muy dalal alxaaji sëriñ daam jigéen mi xam ne moo fiy teew jiite délégation bi nga xam ne mooy bàyyikoo ci xalifa bi sëriñ Mouhamadunil Munir ak ñi mu àndal ñëpp kon ñu ngi nuyu mboolem waa cees Média yëpp di bàyyi sëriñ bi kàddu gi sëriñ bi ginnaaw bi la nuyoo ta di la dalal waaye di la ndokkeel ci màggal gi di la ñaanal jàmm di la ñaanal tawféex ñu bàyyi laa nga nuyoog mbokk yi nga xam ne ñoo lay bàyyi xel fii ci Thiès Média bismillahi wa billahi wa fillahi wa min allah wa ila allah wa ala allahi falyatawakkali lmutawakkiluun daawaahum fiha subhanaka allahum wa taxiyatuhum fiha salaam wa axiru daawahum an alhamdulilahi rabbil alamin والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبعهم واقتدى بهم بإحسان إلى يوم الدين وعليكم السلام سي عبدو نجلي نيو دي جيتل نيو بي تي بي نيك الشيخ محمد المنتقى أيده الله ونصره ñu di ko ñaanal fan wu gudd ñaanal ko yàlla wér ñaanal ko yàlla itam mébétam yàlla mottali ko ko ci liggéey bi mu donne ci ay magam ñu ak i baayam di ci liggéeyal Serigne Touba di nuyu itam Cheikh Bachirou Abdoul Khadir nga xam ne mooy porte parole bu. yoonu murit di sunu wóllëre di sunu xarit di nuyu itam sëñ Modou Mbend xalif général des Baye Fall ak mbooleem murit yi ak mbooleem taalibe yi ak mbooleem jullit yi di ci teg itam sunu baay Cheikh Mouhamadul Mounir nga xam ne mooy xalifa El Hadj Ahmed Baro di xalifa El Hadj Mouhamad nekk ci boppu njaboot gi sababu sam ñun ñu ñëw fii teew ci délégation bi ñu daan dikke muy délégation bu am solo sama nijaay malik mën naa ko ci tudd ak Sow eh, ak ñi ci des yàlla dogalit tabaarakallaahu ñu nuyu suñu sunu wéyjur di sunu baay Ahmed Cissé njigéen nga xam ne mooy porte parole famille bi ak magam suñu Abdou Salaam Njegéen nga xam ne moo topp ci xalifa bi di nuyu imaam alaaji Ahmad Baro Njegéen imaam ratib di nuyu itam Baye Sidi Njegéen moom alaaji Ahmad Njegéen ak sëriñ Ousseynou nga xam ne mooy bëtam di tànku xalifa bi di ko am njàmbaar ci kër gi di nuyu nag xadara alaaji Ahmad Baro yëpp di ñaan yàlla xalifa yi fi nekk ci réew mi yàlla na yàlla dëgëral leen ba lu ñu mébét ñoom ñëpp yàlla mottali leen ko euh, di la nuyu nag di nuyu itam sa directeur dinaay wax toujours ne télévision bi bi mu soso reportage bi ngeen ci jëkk a def ci néeg bi ngeen ko doon defe ci màggalu Touba yi ngeen ko defee ndax diggante biir télévision bi soso ak bi rajo bi euh, ak ak ak màggal gi dañoo dañoo seexoo yàlla dogal nag euh, directeur am ci taxawaay yow itam nga nekk bu baax nekk jotal ndax at mu jot di nga ñëw fii boobaak nëga ni booleeg nag sa taxawaay ci dëkk bi di ci jàppale directeur di ci jàppale chaîne bi ba Thiès Média fi mu nekk nii foo ko tudd nit ñi xam nañ ko loolu sa itte la su ko defee nag bi ci des mooy di nuyu itam sama benn tante Koña Diouf mu nga dakaar sama doom maam Moussa Diouf di sama yaay di sama xarit di ko xamante ni itam day topp chaîne bi màggal gi jotee da koy topp ñu ngi koy nuyu bu baax e di di jaale itam murit sekk nga xamante ne daf ñoo dëddu ku ko waxoon ne ko màggal gi du la fi fekk du ko gëm mu doon kenn ci sëñ loo Lo Gaydel yàlla dogal mu wàcc jamono yii te ñu daan bokk ak moom lu bari e bi ci des mooy sant yàlla julli ci bi e ñew nañu ci magal gi comme niñ ko daan dikke rek ndigalu mam alaaji mo ñu fi indi boba ak def na 39 ans ren du ñaari fan euh, ñew nañ fi waxtu wu ne fekk nañ fi sëñ abdul xaadir fekk nañ fi serigne saaliw ak euh, sëñ alaaji bara fekk nañ fi sidine mukhtar fa tabaarakallaahu ñoom ñoom ñëpp seen xilaafa fi la ñu fekk maamalaa ji doon ñu yebal ngir dundal wóllëre yu doxoon ci diggante sëriñ tubaa ak El Hadj Ahmed Baro ñu amoon kóllëre gu rëy am kóllëre gu rafet bu historique boo xamante ne seqoon nañ ko te mm, waa kër tubaa di ko dundal ci nemmiku maam alaaji bu màggal jotee bu gàmm jotee ku fi toogal sëñ tubaa rek lala war ci teraanga sa diggante kër gi di ko def ba ci sëñ Muntaxa mii nga xam ne ñëpp a koy ñaanal fan wu gudd ak wér ndax léegi ci ngoon maa ngi koy wax ma ne sëñ tubaa dafa mës a nekk itteem daara dafa mësa a bëgg nekk dafa bë mës a bëgg jàngukaay bu mag ci tubaa boo xamante ne àdduna bi yëpp dañ ci rot si di ci jàng si loolu daf ko bind waaye yàlla nga ko sottale ci Cheikh Mouhamadou Muntaka ba mu réaliser ko ba daanaka mu toll ci ay finition ubbi nañ ko itam mu ngi mu ngi dox kon nag ñu ne sous région bi yëpp Afrique yëpp wala monde bi yëpp mën nañoo ñëw di fi jàng si te loolu itteem ak taxawaayam moo ko indi su ko defee nag booleeg réalisation yi ci des yëpp ci dëkk bi mu taxaw di ko def ñu di ko ñaanal fanu gudd ak wér waxuma nag bu sëñ Muniru ci wàllu yëg safoo faale ak lu mu nekk mu nekk ci ak moom ànd kook njaboot gi kon loolu mooy suñu teewaay fii ñu ñëw niñ ko daan defee ci màggal gi rek résidence bi moom kuñ fi tudd ku baax yaa ngi ci biir kilifa diine yi Sénégal yëpp ñu ngi ci biir li leen taxa dikk itam mooy wooteeb yàlla waxta si yàlla waxtasimu bi xablillahi jamian wala tafaraqu yàlla moo digle jullit yi ñu takk seen bopp nekk benn te bañ a def ixtilaaf loolu yàlla ko digle ba ca topp mooy loolu mooy ndono li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon mag ñi ku ci nekk fa nga nekk ak sa fa sa nawle nekkoon sori na waaye benn baat la ñu amoon ba yëkkati lislaam bi ba lislaam bi yegg si fi mu yegg si su ko defee kon nag ñi nga xamante ne bu màggal jotee ñoom ñëpp ñu rungu ñëw ci wetu sëñ Muntaxa ànd ak moom wéttali ko ci bis bi jàppale ko ci bis bi ba màggal gi jeex moom itam bu gàmm jotee mu am taxawaay képp koo xamante ne ñëwoon nga mu yónnee ci yow délégation dem ndokkeel la ca gàmm ga bokkaat ak ñoom gàmm gi loola mooy senegal bi ci des mooy euh, màggal gi ki nga xam ne moo ko woote muy sëñ Tuubaa daf cee woote ñu sant le ko yàlla waaw la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi la shadid yàlla moo digle euh, sant waaw dane bu ngeen ma santee rek ma li waaye bu ngeen weddee nag sama mbugal tar na te jullit li mu nit li mu war a sant yàlla dafa bari waaye sëñ Tuubaa nag dafa dugg ci fit ci nattu dafa dugg ci nattu ba nattu ba jeex bi natt bi jeexee mu digle ne moom lott na ci sant yàlla jàpp na ne moom lott na ci kon nag képp koo xamante ne mbégam sa mbég la na ngeen ko santale yàlla ci bésam bi lu tàmbalee nag ci ganaar ba ci gëléem ñu war fee daje jàng alquran jàng xasida ah béglente ci ay xéewal nit ñi nemmi dundalat sen sen diine dundalat sen senegal ci rafet kaddu yu rafet and and bu rafet lolou rek moy li nga xamne moy wote bi sabab aduna bi yep ñew fi nat yi nga xamanteni mom la ko yalla garon nak euh, am amna jomu mom am taxaway ba wax ni euh, dafa ngir feddaliwaat sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam waaw moom mujaddid la woon bu mag lil Moustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatu garra wa inni ahmadu moom loolu rek a taxoon mu dikk pour dekkalaat yeesalaat sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam loolu moo doonoon itteem waaye mu bàyyi fi njaboot yoo xamante taxaw nañ ko ginnaawam ba drapeau bi daanuwul mu tàmbalee ci sëñ Modou jàll ci sëñ Mouhamadul Fadal mu jàll ba ci tabaarakallaahu Cheikh Abdoul Ahad mu jàll ba ci sëñ Abdoul Khader mu jàll ba ci Cheikh Saliou mu jàll ba ci sheikh euh, euh, Mouhamadou Moutada ñoom ñëpp kenn ku ci nekk lala war ginnaaw bi mu nee war ñoom ñëpp dañoo am taxawaay fexe ba tuubaa dund ay kàddoom dund li fi bàyyi woon ci naal digle woon ko ne nañ ko ko defal lépp ñu defal ko ko looloo sabab kon tey ji ndam li am ci Touba di ndamu senegal di ndamu jullit yëpp di ndamu murit yi ndax ñëpp murit lañu isil muridu laa yuridu abadan gayru rida rahmanu haysu hasada képp koo xamante ne yaa ngi wax ashadu an laa ilaha illallah rek ci loolu nga bokk moom la sëñ Tuubaa waxoon waaw biñ ko laajee ne ko ñen ñooy sa njaboot daf na koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa ashadu muhammadan rasulullah ci man nga bokk murit tam mooy koo xamante ni fu mu dégg lu baax rek soob ca loxoom loolu damaa defee ne jullit yëpp la foo dégg lu baax rek jël sa lu baax dugal ca foo dégg lu baax jël sa kàddu yu rafet dugal ca loolu mooy murit murit du dara lu dul loolu du du maxtume du du mbubb mu rëy du loolu du loolu rek waaye sëñ Tuubaa li mu ci digle woon mooy koo xamante ne da ngay da ngay jox sa bopp yàlla ci lepp lo xamantene rek lu bax la nga sobu ci kon nak lolu moy message bi nga xamantene man mom la doon wax ah tay ñaan yalla senegal yalla def ci jam di ñaan yalla itam xalé yi yalla def ci ñom jikko yu rafet parce que rew mi mu ngi yàqu ci ay jikko mu ngi yàqu ci kaddu yoy yep mu ngi yàqu ay valeur la won yo xamni ni euh, tay bu mag ñi delu ci gis Senegal mu melni dinañu am jaaxle ko defee kon nag ñu ñaan yàlla réew mi yàlla def ci euh, yàlla redressé waat ko ndax innaka laa di man ahbabta walakin allah di man yasha la yàlla waxoon yenent bi ne ko yow mënoo jubal kenn dama laa waxloo rek waxal xol yi nga xamante ne nag ñoo jub man maa leen di jubbanti kon nag loolu mooy li nga xam ne moom laa doon jotal ci message di ñaanit réew mi yàlla def ci wërsëg nawet bi ñu dugg nii yàlla def ci barke mu nekk nawet boo xamante ne du indi yàqu-yàqu waaye day indi xéewal yàlla na ko fi yàlla defal ñu ànd ak sëriñ bi ci màggal gi ba màggal gi jeex ñu ànd ak sëriñ si ci gàmm yi ba gàmm yi jeex ñu àndaat ko ba déwén yàlla nañ ko yàlla defar wa ma zalika ala llahi bi aziz wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala barakaatu mbokk yi xam ne yéen ñuy bàyyi xel fii ci Thiès Média day mel ni waxtaan wi kenn doyul ci din ko daan defee at mu nekk rek ci sëriñ alhaaj daam njëgéen nga xam ne ay kàddoom day kàddu yu soññe day kàddu yoo xam ne tamit maam lu bari lañ ciy jànge di kàddu koo xam ne tamit ku dégg xam ne moom lislaam rek moo ko ñor kon sëñ daam ci turu waa Thiès Média yëpp ñu ngi lay santaat bu baax a baax njëgéen te di la ñaanal suñu borom gën a guddal fan wi gën a wéral cër yi ba naal bi nga xam ne am nga ci lislaam da ku la xam xam ne am na ay naal yu rëy yoo xam ne laal naal nga ko te loolu lépp li ko waral rek mooy lislaam gën a jëm kanam ndaw ñi gën a jariñu kon loolu lépp yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla àggaleel te yàlla defal ak wér ana yeen kàddu rek mooy yi ngay tàggatoo ak fi jamono toll te sëñ daam comme ni nga ko waxee léegi lu mel ni ndaw ñi léegi ku nekk Sénégal rek xëy na tiit nga ci jamono ndax liñ fiy dégg léegi bu njëkk kenn daaw ko dégg yërmande amoon na fi xol yi àndoon na waaye dafa mel ni daal fee nii yéen kilifa diine yi daaw leen jóge ci wax waaye jamono ji dafa mel ni seen message moom dafa mel ni ndaw ñi war nañ koo mën a gën a bàyyi xel bu baax. waaw xam nga diine yonent bi ay salaatu wasalaam daf ne woon ni mu dikke woon noonu lay delloowaat diine bi muy ñëw dafa yàqu buy delloowaat day yàqu waaye li ñu mën a jongar bee yëf yi mooy jàng jàng ñàkk a jàng mooy yàq réew nit ñi bu ñu jàngee ñu tarbiye leen. su nga tarbiya léegi maa ngi koy wax sama nijaay Malick ma ne ko euh, yoonu murit bu ñu jàngalee alxuraan ba nga mokkal alquran suñu paree xam nga lu ñu lay def dañ la demal nga murit tarbiya la tarbiya mooy booy wax sa kilifa nga xam nooy waxeek moom booy toogal sa kilifa nga xam nooy toogeek moom boo booy dugg ci néeg ah nga bañ a fëgg taxaw ci bunt boo wax ndànk asalaamualeykum ñu ne la duggal waaleykum salaam nga dugg xeet yooyu moo dem valeur yooyu moo dem ba jeex tàkk te tekat du dara lu mooy roy tubaab bi roy tubaab bi rek dañoo roy tubaab bi te xam nga boo demee ci alquran suñu borom mu ngi doon wax ne wal walidaatu yurdina awladahunna xawlayni kaamilayni liman araada an yutima radaa na ngeen nàmpal seen doom yi ñaari at ngir ñu nàmp ci yéen jom namp ci yéen ngor xeetu jikko yu rafet yooyu ñu nàmp ko ci xam nga léegi nag bu demee ba kilifa yi talatuñu doom yi pour yar leen amatuloo benn télévision bi dugg si na ci biir kër ba mujj toog toogaayu baay ak ndey bu waxtu waxtu wi baay waroon di conseiller njabootam télévision bi ñëw remplacer leen ko yow talatuloo yar sa njaboot talatuloo toog ak sa njaboot ah su boobaa xale yi ci média bi la ñuy yaroo internet bii muy youtube beeg xeet yooyu li ñu tiktok bi li ñuy yàq lu xëy defar ko ci alquran loo xëy defar ko ci daara ji bu ngoonee xale yi génne ko ci télévision bi yàq balaa fajara jot ñu yàqu loo xamante ne da nga leen ko doon yare bu ngoonee télévision bi ak euh, youtube bi ak tiktok bi yàqaati lépp ba mu yàqu yooyu nag il faut dañuy war dellu siwaat au sources ñu dellu siwaat ci alxuraan dellu siwaat ci sunna yonent bi dellu siwaat ci yaru mag ñi jéem a fexe góorgóorluwaat ci ndaw ñi yaraat leen te mu am lu mu jar état jàpp ci diine ji jàpp ci su boobaa mën nañ ci amaat chance tuuti waaye ci nii réew mi di doxe ak ñaan waaw ni astajib lakum waaw nangeen ma ñaan ma may leen ñu ñaan yàlla yàlla soppil ñu jamono waaw waaw laa tasuubu dahr fa inna allah huwa dahr yàlla def ne bu leen ŋaañ jamono ndax yàlla mooy jamono kon nag euh, lu lu bëri ñu ngi koy jàpp di ko ŋàññe jamono fekk nit ñii la waaye ñi war a wax bu ñu noppee ku wax ñu saaga la kilifa diine gu fi daan wax léegi waxatoo ñi ñemetoo wax ñoom ñëpp dañoo delluwaat seen toog parce que boo génnee léegi wax léegi ñu saaga la léegi nga delluwaat toog léegi nag ñi war a wax bu fekkente ne dem nañu ba ñoom waxatuñu mais catastrophe mooy am kon nag ah ñun ñëpp ñoo ko bokk nañ ñëpp góorlu ñu kenn ku nekk seet sa wàll la nga ca man ci lu baax nga def ko ñaan yàlla jubbanti wa ma zalika alallahi bi aziz wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi nga xam ne yéen ñuy bàyyi xel ci màggal 2024 lii mooy kàddu yi ñu leen jëlale woon ci alxaaji daam njëgën nga xam ne moom mooy jiite délégation bi nga xam ne mooy jóge ci sëriñ mu Njëgën al Khalifa ànd ko comme ni mu ko waxee mboolem délégation bi yëpp waaye di ko ñaanal suñu daam suñu borom gën a guddal fanam loolu mu wax ci dëkk bi moom de rôlam mi ngi ko ciy def bu baax a baax a baax ndax mi ngi tabax ay juma di tabax ay daara fee ca njuuxaan pël ànd kook euh, li nga xam ne tamit moo ngi koy def fee ca sali ak yeneen yi nga xam ne yëpp yaa ngi koy naal sëriñ bi yàlla na la yàlla àggalil yëpp ba nga li yéene ji nga ci am yëpp sunu borom mottali la ko ba yeneen ak yeneen yeneen yeen teewu ci tan yàgg di ko teewe ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam barke Cheikhna Ahmadul Khadim kon lii mooy li nga xam ne mooy kàddu sëriñ daam nga xam ne moom jële woon fii ci màggal 2024 ñu ànd koo nag